xam-xam taalibe yeeg ñi nga xam te ni ñoom ñoo nekk jamono ji ci daara yi def naa ne bu ñu sëggee rek ci euh, mbindum sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul bii rek dinañ ci jëlee lu bari moom euh, sëñ bi foofu wax na fi euh, ci li nga xam te ni noonu la taalibe bi war a mel ci li nga xam ne moom la war a dem jëli ji tey jii war na ci ànd ak Pastef mhm. waaye tamit muñ li nga xam te ni moom moo ko si nar a fekk ndax bari na lool ay dëkk yoo xamante ni moom moo nekk ci kanamam te mu war see jaar tey ba war a mën a daal di dem jëri ji loolu nga xam te ne moo di xam-xam bi mm-hmm. li nga xam ne moo di wàllum xiif ak nan la ko nit war a muñee koo xam te ni bëgg nga tey xam-xam waroo ragal xiif am na lu fa sëriñ bi kon daal di wax ci ñi nga xam ne ñoom ñooy taal bi ak yeneen ak yeneen mu mel ni sax dama fi toog ak ñoo xamante ni euh, daanaka loolu euh, seeni mbir la mhm. ci mel ni euh, Cheikh Bara mhm. mu ngi nii toog soay bu Cheikh Bara laa njëkk jox li nga xam te ni moom mooy kàddu gi Cheikh Bara lan nga ñu mën a wax ci kun kaati bi bu sëñ Tuubaa boobu waaw asalaamaaleykum maa nuyu sama njóobeen bi gis caaf li ba fàtte micro bi. <laughs> nuyu bu baax tamit say euh, anjoogu mi ngi koy tooñ sax sama xarit Oustaz Assane Seck TFM. xëy na yàlla na li ko téye yàlla na nekk jàmm rek. ñu ngi koy xaar beneen yoon ndax nit ko am xam-xam la koo xam ne jikkam xam naa ne dina fi indi njariñ lu baree bari. su ko defee comme euh, yaa ngi bëgg a waxtaan kon ci kun kaati man di benn xasida bu gàtt. boo xam ne sëñ Touba daf ko bind bindal ko ma xale laa war a wax ma gone ndax xale moom maanaam bu mu waxee gone damaa jàpp ne mooy koo xam ne ab perantal la koo xam ne tollagul sax ci dal jàng wala da koy doog a dal euh, bu dee xale nag mooy koo xam ne maanaam diggante xëy na mën naa am mi ngi toll diggante ay defee nag université ba nga xam ne ay bëgg-bëgg mi ngi koy tàmbalee dikkal ci consigne boobu ci ñooñu la gën a jëm ndax yim ci wax moo lay wan ne waxul ak euh, parental buy raam wala kuy doog a toll ci dal jàng mm-hmm. waaye dafay wax ak koo xam ne dem nga ba tàmbalee jàng ba sam xel tàmbali tàmbali di majeur maanaam war a mën a dem jëfi première primaire ba ba diggante daal befem ba bag jëm kaw ñoo ñu lay waxal parce que diggante boobu dañ fi tàmbalee mos xaalis wala nga tàmbalee fee mos leneen ak leneen te yooyu yëpp sëñ bi indi na ko maanaam wala yeneen ak yeneen yëpp sëñ bi da ko cee indi ci biir wax ji su ko defee parce que bu dee mag ñi moom dañ naan xale moom mooy koo xam ne boo ko mayee kër soxlawu ko boo ko mayee oto soxlawu ko boo ko mayee jabar soxlawu ko loolooy xale léegi nag am ñeneen keneen koo xam ne mi ngi ci jàng bay toll ci fin yii ma la wax yëpp soxla na ko te teewul bu ko toppee rek dina yàqum njàngam moo tax mu ñëw ne ko kun kaati man bii durri wal busaatanan xasdan wa taxlal ji la yaa mu taxallim maanaam ne ko kun na nga ne kaati man di maanaam na nga nekk koo xam ne da ngay bu lor yi boo ko defee xas ah, dam wa taxalal jii la di nga mujj raw say maas ñëwaat ne ko laatu kasir sagwa fa kun mu ta jàlli dan xataata xataata naa sax am nakal mun ximu mu ne ko bul bari looy jàmbat parce que boo dee jàm boo boo boo dee boo noppee rek ba a jàmbat da nga naan pat ba nit ñi defee ne sax yow dangaa nekk ci xéwal te fekk ne yaa ngi ci coono am na feneen fu naan ko alxilmu laa yaxtaali man yaxsaa tawan ban xilmu rabbuna habdan saburan yalhamu maanaam xam-xam yàlla du ko jox mukk koo xam ne dafa ragal xiif mu ne ko bul nekk nit koo xam ne da ragal ab xiif ndax alxil abdan saburan yalhamu maanaam jaam boo xam ne day day day muñ rek la suñ borom di jox xam-xam su ko defee am na feneen nag foo tax ma naan indi indi jaay lay waxal mooy fi mu naan naa il kawaakiba wal hawaaniya muxtasil in tat na min ha min dan laa yoxsim ma euh, mu naan ko na nga moytandiku njagamaar yi maanaam wala ki kawaakiba mooy borom borom ween yi tàmbalee jóg mhm. na nga leen moytandiku <laughs> looloo tax ma ne sëñ bi waxul xale yu tuuti yi waaye dafay wax ak maas gi nga xam ne ndax nit ñi dañuy jàng ba am diggante boo xam ne yow ak ku jigéen ci da ngeen di bokk classe mhm. muy solo xëy na nga tàmbali di mesure man koo xool sa xel nekk ci moom wala nga am lenn looy jéem ci moom mu ne la naa il kawaakib maanaam moytandikul njagamaar yi wala boog boroom ween yooyu di tàmbali jóg dégg nga su ko defee ah sëñ bee ko bind noonu la ko bindee <laughs> su ko defee loolu ah. loolu su ko defee <laughs> sëriñ bi loolu daf koy daf koy wax pour ba léegi rek di wan nit ki ne ko mm-hmm. soo dee wut xam-xam daal te nangu woon nëbbu yi nga xam ne daf lay naqari doo am xam-xam mm-hmm. soo dee wut xam-xam te nangu nekk koo xam ne da ngay muñ ab xiif doo am xam-xam soo dee wut xam-xam tamit te nanguwoo nekk koo xam ne da ngay euh, euh, ragal nu mu tuddati maanaam bari looy jàmbat lu la dal rek nga ne nga coow jàmbat ko moo xam feebar moo xam ñàkk moo xam leneen doo am xam-xam soo dee jàng tamit te nanguwoo moytu jàng njagamaar yi jongoma yi doo am xam-xam léegi nag lépp fi ko jeexale mooy euh, xam naa suñu fan bu dina ci ñëw sax ndax ah, li ñuy waxtaane mbirama <laughs> waaye mu ne laa tu laa euh, tastari dunia bi uxraa yaa fata man baa an nooran bi dijaa fasa yan dem dafa jël dafa jël xam-xam tudde ko leer jël ñàkk xam tudde ko réer mu ne laa tastari dunia bi uxraa yaa fata mu ne bul jaay mukk sa àdduna di ko jënde alaaxira <laughs> maanaam bu la dara jaral nga fekk alalu adduna wala maanaam euh, daray àdduna daal nga jaay ko jënde ko alaaxira mu ne man baa an képp ku jaay ak leer bi du ndax lëndëm fa sa yam da mu ne di nga li nga def. Mhm. xam naa loolu nañ yam foofu rek. sëñ bi parce mhm. a kon daal di. Mhm. bu yow lan nga si euh, wax rek. waaw xanaa di rafetlu euh, euh, sëriñ Baara rek taxawaay bi mu ci am. xam da ngay indi koo xam ni. waxam jamono moo ko firi. jamono moo koy firi foo toll ndax ñun ba ñuy ne ca daara ja dafa bari ay mbir yoo xam pour li la xamal ni mag ñi dañu doy waar su nga sëñ Tuubaa kenn xamul lu doon. Euh, dama ñëw ci daara ji di jàng euh, bi ma commencé jàng xam-xam sama sëriñ daara ni ma naxjul xadaay laa lay jàngal euh, oustaz xam na ma ne ko lu tax mu ni ma parce que xasida gi dafa yar nit mhm. pour ñi nga xam ne dañuy wax ni sax nit mënalul fële ëllëg nit dara mhm. da koy xool ci téere yi nax ju bokk ci yenn téere yi sëñ yi nga xam ni da lay yar ci lépp maanaam nga xam ndax danga war a toog ndoog mag ndax mag daa war a wax ngay wax mhm. comportement bi nga war a am ak ay kilifa daf koy jàngal Euh, euh, li nga indi nag mooy kun kaati man bokk ci xasida yi nga xam ni Oustaz Alioune Sall ñu ngi koy nuyu dafay faral di wax ni dañ ko waroon a boole ci biir njàng mi maanaam dugal ko ci école yi mm-hmm. ndax Serigne Bara junj na ko lu baree bari dina tarbiya xale bi nga xam ni maanaam dafay dugg ci njàngum euh, école mu bari ay maanaam kuy dugg ci école ñaari fuuy dana la yomb ñu baal ma mais noonu lay doxee noonu la système bi tëddee yeneen yi dina la yomb parce que comportement boobu lañ lay jox mu wan la ni la nag ba wut da maanaam da war a ñemee xiif ni ko oustaz waxee boro di jàmbat maanaam ko ni nga xam ne tey doomu daara bi noonu lay demee daara bu amul dàll du ko jàmbat ba da ngay gis xale bi def tànku neen su amul yëre bu baax du ko jàmbat da ngay gis ndeysaan yëreem day xotteeku mu wax la ni la nag yow mi toll ci wut xam-xam dangaa war a wàññib jàmbat mais foofu euh, imaam junj ko warul yam rek ci xale bi de sëñ Tuubaa dafay dem ba jàngal la ci biir xasida gi yow mi nga xam ni sax yaa ngi nekk ak sa borom kër yaa ngi nekk sa chef yaa ngi nekk ci entreprise bi bul bari jàmbat ñaari xooloo liggéeyukaay liggéeyukaay boo dem ñi fa gën a bari ab jàmbat ñoom ñëw fay voilà voilà boo xoolee souvent mhm. parce que jàmbat baaxul mhm. moo tax Sëñ Tuubaa indil la xaside gi mhm. indil la ci yu bëree bëri yoo xam ne tey bu ñu ci tënkoo da ngay gis ni sa àddina dafa dafa tege ci yoon yi nga xam ni mooy siraatal mustaqim euh, euh, imaam ñëw nag ci euh, la tasri dunia muy loo xam ne tey dañ cee toll ndax euh, sëñ Mbàkke Soxna Lo boo ko waaji ne ndax da nga maanaam euh, waaji dafa jaay ngoram sëñ Mbàkke Soxna Lo dañuy déedéet ngor ku am doo ko jaay mais fi ñu toll nii la tas sëri dunia bi oxra ya fata man ba anuuran bi di jaa fasa yandam ni ko ni ko euh, sëñ Baara waxee ñu bëri jaay seenu leer jënd ko ak lëndëm moo leen teg li dal mm-hmm. ki nga xam ne tey par exemple démb moo ñu ci rajo bi woo saa njóogu ak baat bu bi mu waxoon ci rajo bi mm-hmm. jaay ak leeram jëndee ko lëndëm moo ko teg mm-hmm. maanaam soxna soo xam ne toll nga ci wut borom kër toll nga ci fonde euh, wut njaboot mm-hmm. ut kër nga toll ci jamono jooju nga xam ne yematoo ci dem wuti ay góor mais yaa ngi koy boole ci waxukaay boo xam ne adduna bi yëpp ñoo koy déglu mm-hmm. ngay fësal yéen kàddu yi bokk na ci yaa ngi jaay sag leer jënde ko lëndëm mm-hmm. démb dama ànd ak euh, ay nit dem tourné ji émission ci àll bi ma gis ay doomu aadama yoo xam ne ay xale ndaw toll ci seen diggi jamono yore sàngare ci àll bi yore loo xam ni di fóon lu bon nga xam ni ñooñu mooy man baa an nuuran bi du jaa fasa yandam fan la ñuy mujjee ëllëg mooy mandikat bi ngay waxtaanal euh, euh, Seyda mu ni la bu démb doon tey du ma laal lii dama masal ma waxtaan ak benn waay boo xam ne Gàmbi la nekkoon yàgg na fa sëñ Baara mu ni ma dafa am waay bu ma lor der la woon Gàmbi ma ne ko lu tax mun ma moo ma njëkk xamal jigéen mu ni jour boobu ba léegi mënut bàyyi mooy yàlla muy kon man baa nuuran bi du jaa sa yandam parce que foog na ni ndaw gi ñu ko denc loo woon pour ëllëg jàpp na ni moom waru koo waru man a waru koo denc dafa war a xàppi dafa war a dund dafa war a bégee loolu nag li koy waral ñaari amoo bagage bu daara. Mhm. amoo yaru diine. Mhm. formé wuñ la jàngaluñ la xamaluñ la mais tey boo jàngee yenn yi nga xam ne Sëñ Tuubaa amul lu mu wax lu jamono firiwul lépp loo xam ne gis nga mu wax ko ci xasidaam ñaari da ngay gis jamono da koy firi. Mhm. kon ndaw li lu ci jamono nga xam ni jamono soxla na ko àddina soxla na ko bàyyiwul xel ci njàngaleem mag ñi bàyyiwul xel ci njàngaleem diine ñaari fakkas solo da koy yomb moo tax nag lépp loo xam ne mag mi dafa waxoon ni nit ñu ñi baax nañ ci société bi ñu lu tax mu ne parce que ñoom ñooy wane ñu baax ñi Euh, plateau bi lu tax mu rafet mooy parce que man damaa ñaaw loolu moo a taar bi am su fekkoon na ñun ñëpp ñaaw plateau bi kon doon nga xaw la xew su fekk ñun ñëpp rafet kon taar du génn mais faaw ma ñaaw saa njoogu rafet taar bi mën moo tax mu ne ñi ñaaw ci jamono ñoom ñoo mën wane ñi rafet mhm. léegi nag ñi ñaaw ñooñu nag dafa am ñu leen war a orienté maanaam moom laa tuddee njuumte moom laa tuddee man baa anuran bi di jaa fasa yan dam mhm. mooy dafa am ay royuwaay nag ginnaaw bi sëñ baa demee am na ay royuwaay yu fi nekk Seyda mhm. mooy képp koo gis képp koo gis mu nekk ci njàngale mag ñi mhm. nga nangu koo déglu suñ sàmba yi doon na ko wax euh, euh, oustaz moo ñu ko gën a jàng boo nekkee ci jamono da ngay fexe ba bañ a bokk ci ñii bañ a ànd ak borom xam-xam yi maanaam voilà ñi ignoré mhm. fexeel ba jublu leen fexeel ba bëgg leen fexeel ba di leen supporter fexeel ba di leen bàyyi xel mhm. ndax dañu toll ci jamono boo xam dañuy ñaar mën nañ ànd muy diina ak jamono ñun diina ak jamono ñu tuddee ko lu bon te la tasibu dëhëra euh, fa inna dëhëra huwallah ñoom ñoo ko jàngal ñun dañuy wax ne jamono day soppeeku yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ñun nag jamono du soppeeku ndax jamono moom mooy yàlla mhm. ñun nag dañu foog ni diin jamono koo ko wax mooy tey def nga day ngay woyofal diine ji waaw jiw nga fii baax nga fii mhm. léegi loolu lépp nag li ñu ko ñàkk li ñu ko xañ lépp mooy dañoo gëstuwul suñu diine mhm. mais gis nga kun kaati man bi nga indi wallaahi la wal quraan bu fekkoon dañ ko dañ cee tënk suñu ay ndaw dañ leen koo jàngal dugal ko ci école yi xale yi du ñu toj ay kaar xale yi du ñu jàmbat xale yi du ñu grève xale yi du ñu sonal seen parents yi parce que mboolem lu xale melokaan bu xale war a am ba keroog ngay ëllëg ngay arrivé sëñ Tuubaa bindal na la ko ci biir xasida li nga wax noonu dëgg la parce que tamit si ma lay rejoindre rek moom mooy uh-huh. li nga xam ne moom mooy jàngale yi nga xam ne moom sëñ Tuubaa uh-huh. daal ko jagleel ndaw ñi mu mel ni bu fekkoon dañu koo jël ñu firi ko Uh-huh. daal di ko dugal si euh, d'abord mu nekk li nga xam ne ni moom mooy euh, li ñu daan def institution civique nga xam te ne sax léegi amatul si école yi uh-huh. lu bari daal dinañ ko commencé léegi di ko wàññi par ndànk-ndànk ba daanaka xale yi léegi sax uh-huh. xamatuñu li nga xam te ne mooy seen euh, ni ñu war a nekkee seen réew ak ni ñu war a doxalee tubaab bi ba mu indee li nga xam ne mooy école française bi dafa am yoo xam te ne da ko censuré parce que bëggoon na suñu ndaw di def assimilation uh-huh. mel ni ñu mel tey jii parce que tey ji li nga wax rek ku gàddu saak uh-huh. ñu ne la yaa jël première seen classe nga uh-huh. commencé fuuy waaw maanaam yow préparé wuñu la pour yow nga mën a gérer sa xam-xam boobu déjà parce que humilité sëñ mhm. Tuubaa wax na ko fi li nga xam ne moom mooy mhm. école française la si préparé mhm. bu bu Cheikh Bara waxee yow nga wax ku jàng français ñëw toog danaan laan yow xamoo dara parce que sa daara ja fekk na loolu lu ñuy a euh, instaurer le petit à petit si li nga xam te moom mooy école française bi xale yi di ko jàng parce que soy bu li ma gis si école euh, bi léegi la moo si gën a dangereux moom mooy à l'époque amoon na benn kersa bu amoon si xale yi. Mm-hmm. nga daan jàng am na foo bu fa tolloo tey bu ne la yow yaay chéri diw doo ko bëgg dégg. Mm-hmm. parce que dañ koy ruus wala nangam mais tey mm-hmm. gis nañ ne dem nañu léegi ba inst ba indi fi léegi ay genre téléfilm. yoo xam ne xale yi ñu ngi siy jàng. nga nekk euh, nga nekk primaire. commencé am far. wala nga nekk euh, moyen secondaire wala nga nekk secondaire commencé di fo di am far. maanaam foofu noonu ñu ngi jàngal tamit xale bi mhm. muy foo ndànk-ndànk mhm. di tàmm jigéen déjà sa performance mu ngi wàññeeku mhm. nga dem ba à l'université foofu moom yàqu nga moom donc loolu aussi bu fekkoon ne comme sa Oustaz Alioune Sarr wax rek ñu daal di ko insérer ci système éducatif duñu yàqal dara parce que ñëpp say jëriñu muy musulman comme mu muy chrétien ñëpp ñoom ñoo siy jëriñu yaakaar naa ne loolu aussi ñu aider bu baax a baax sandioobu voilà tey boobu macha allah gis nañ ni euh, manqué nga oustaz. te <laughs> defe naa ni ñii fi toog fees nañ place bi. ci ni nga xamante ni bii def nañ ko muy intervention yu am solo. Mm-hmm. yonent bi na xam-xam jar na dem ba Chine. Mm-hmm. Sëñ Tuubaa wax fii ci xam-xam. Mm-hmm. waxu la alal. waxu la wuti leen alal. wuti leen xam-xam. muy lu am solo wuti leen xam-xam. Souleymane fay way ci way boo xamante ne bi boo ko méngaleeg li nga xam ne boo amee te xamuloo ki am jóge ca àll ba ñëw jariñoo ko kon xam-xam mooy lépp loolu mooy li nga xamante ne bi moom mooy ci mooy li am solo ci li nga xamante ne bi mooy mbir mi mu wax ci kaw li nga xam noonu ngeen ko firee mu wax ne xam-xam boobu ci kaw nga koy wuti mm-hmm. dafa am lu muy jar ngir nga wut ko maanaam xiif ak yooyu yëpp nga xamante ni bii mooy li ngeen lim que ni bu mu leen tax mooy galgal yi nga xam ni moo nekk ci yoonu ngir ngeen joti ci xam-xam boobu mais na leen ko jaral. yooyu yëpp teg leen ko fële. ngir jot ci loolu nga xam ni bii mooy lu précieux mooy li nga xamante ni bii. mooy li li lay defar ëllëg. defar say ñooñ defar lépp muy xam-xam boobu. donc loolu mooy li nga xamante ni bii vraiment boo waxee ne Oustaz Alioune Sall nee na. lii dañ ko war a jàngal parce que ni ma leen déggee ngeen toj ko Cheikh Bara ñëw wax ci nga ñëw aussi tamit ñëw ci kii bi mhm. vraiment c'est extraordinaire te donc li mel nii Fatma Seye vraiment tey moom macha allah xaw ma lan nga naroon a waxtaanee waaye lii nga waxtaanee pour man mbir la moo xamante ni mu am solo parce que Cheikh Bara ñëw na déba détaillé na furi na ko daal maanaam tafsiral nañu mhm. li nga xamante ni bi moom mooy euh, kii bi quoi sëñ bii ni mu ci waxee moytu leen jigéen ñi bu ñu tolloo fii ak bu ñu defee nii bu ñu de comprendre mu nekk wax yoo xamante ne bi wax yu leer la parce que mu wax ko nit ñi ngir ñu xam ko te yooyu yëpp tamit mooy obstacle yi nga xamante ni moo lay tere nga bañ a yegg ci xam-xam boobu ngay wut parce que Fatma Seye wax na sànq expliqué na ne boo commencé dugg ci yenn sa performance mi ngi commencé di wàññeekook yooyu parce que yeneen a ngi commencé dugg ay bëgg-bëgg te waroo bëgg dara waroo dara lu dul boobu donc loolu nekk loo xam ni vraiment euh, macha allah rafet na donc sëñ bi mooy li yonent bi waxoon rek loolu rek mooy li nga xamante ni bi moom la ñu wax mm-hmm. xam-xam la yonent bi wax ne jar na dem ba Chine mm-hmm. sëñ bi ñëwaat wax ñu li nga xam ne mooy xam-xam donc xam-xamay lépp jërëjëf mm-hmm. dañu rafet na loolu li saa di wax rek rek li nga xam te ni moom mooy wuti xam-xam boobu li tax ñu ñu war a insister surtout si partie bi muy waxee li nga xam ne moom mooy dëddu àddina en quelque sorte parce que moom mooy muñ xiif nekk koo xam te ni bëri woo jàmbat waaye nekk nit koo xam te ni tamit dangay moytu mooy maanaam moytu xale yu jigéen ñi parce que loolu gis nga day feeñ sax ba ñi nga xam te ni ñoom ñoo nekk ay sportif boo seetloo souvent sportif yi nga xam te ñoom ñoo gën a performant ñoom la ñu gën a dégg ci àddina bi saa yu defee interview boo leen laajee dinañ la wax foo xamante ni par exemple dañuy moytu jigéen moytu fo moytu yenn ci cakaay yi te loolu yëpp préparation la boo xam te ne da koy def bi nga nekkee bassage âge ñu daal di la si commencé di la forger nga yéeg ak moom di dem au fur et à loolu mooy li nga xam te ne moom moo lay daal di former si li nga xam te ne moom mooy avenir te Sénégal li nga xam ne moom lañuy ñuy euh, jël fan yi moom mooy mbirum médiocrité si li nga xam ne moom mooy ñi nekk au devant de la scène ñi leen di déglu ñoom ñëpp ñu si bëri dañuy prôné li nga xam te ne moom mooy médiocrité yaakaar naa tamit loolu aussi lu jara bàyyi xel la waxu mag daal du fanaan àll kon euh, jot na ñu jël euh, li nga xam ne moom mooy kàddu mag ñi euh, di ko dugal ci li nga xam ne moom mooy enseignement bi ñu bëri nag ñu ngi koy yenn saay boo waxee ñu bëri duñ si sawar loolu mais je pense que loolu du yàqal kenn dara en soi bu fekkee ne rek tamit ci parti boobu mën nañ si prôné bu baax a baax ngir ñu gën a dëgëral kàddu yooy nga xam te ne moom mooy kàddu mag ñi si école yi. te Fatima gis nga jamono bi liñ ci ñàkk lépp sëñ Baara. muñ moo ñu ko xañ. lépp ñàkk muñ bari ay bëgg-bëgg tegante bët euh, moo tax xam naa ni jombul ay bés dinañ ci ñëw mhm. ndax sëñ Tuubaa lépp lu mu bind rek ci ci alxuraan la ko jëlee mhm. alxuraan bu nee la euh, likulli sabarin sakkurin muñ kat boo gi sant lay mujjee mhm. dana metti nag mais alxuraan nee na muñ kat boo gi sant lay mujjee te alxuraan wax na dëgg moo tax ku muñ lu mu yàgg-yàgg sant rek ngay mujj Sey Bara lan la ñuy wax xale yi nga xam te ni tëj ko waa xale yi daal xam naa ñu xam importance su kii doon wax ak ñoom rek mhm. muy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di koo xam ne mhm. euh, du ma wax ci digganteem ak yàlla du ma mhm. wax ci digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye ci digganteem ak nit ñi euh, wàccoo na ak ñoom muy koo xam ne ci réew mi la juddoo fi la jànge fi la defaroo fi la defaree te it ab defaram moom yaakaar naa ne nekkuñu naan lii ak lii kon kooku bu tourné ak xam jëm xam àdduna ak xam-xam bi nekk ci moom yépp su tourné di la jox benn conseil da nga ko war a déglu ak déglu gu mat sëkk rawatina nag ci ñaari point yi sëñ son yi bu ñëw benn bu njëkk bi mooy muñ yàlla inna allaha maha saabirina rek la wax maanaam yàlla mi ngi ànd ak ki nangoo muñ beneen bi ci des mooy yonente bi salaay salaam yàlla defal na ko lu ne waaye benn benn dolli ma rek la ko mas a wax muy muy muy si rabbi sit ni ilman mm-hmm. nanga ma dolliwaat xam-xam importance xam-xam moom fu ko waay takk rek Ah, yem ah, ah, kenn xamul dayoom tey ji daanaka li ñu wutale ak États-Unis wala yeneen pays développé yi mooy niveau bi ñu toll ci xam-xam lañ mhm. tollul rek kon nañ gën xam lan mooy njëriñu xam-xam waaw jërëjëf euh, ñu jaajëfal euh, ñëpp ñi nga xam te ñoo participer vraiment si li nga xam ne moom mooy thème bi Souaïb ak euh, Cheikh li nga xam ne moom la ñu kon décortiqué tey ji ci kunkaatiman bu Cheikh Ahmadou Bamba ak li nga xam ne nii moom la waxal ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg xam-xam dëgg nag xam-xam bi nga xam ne moom moo tax ñu naan xam-xam du rek dem si l'école daal am naa samay diplôme ñëw toog fekk na dara nekkul si sa bopp loolu yëpp tamit lu jar a bàyyi xel la ñu yaakaar ne rek profité ngeen si bu baax a baax xalaat ne tamit suñu invité du ñàkk ne jàmm moom moo ko tee dinañ ko xam naa jotaat bu ñu paree li nga xam ne moom mooy rek plateau bi di leen jaajëfal yéen bu baax a baax ci ànd bu rafet bi di leen jox dig daje beneen jeudi incha allah ak beneen kàddu mag incha allahu rabbi jërëjëf euh, madame Ndir yaay doom euh, yaayu yaay imam ah. <laughs> donc macha allah waxtaan wi rafet na loolu ngeen indi kàddu Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul damay wax ni que nag euh, waxu Cheikh Ahmad Bamba géej rek la dañuy dellu fi nga xam ne rek moom moo di fa régie daal di ànd ak sunu rubrique fajum cosaan saa njogu màng ak. Cheikh Gabriel Préra jërëjëf Abdou Top El Hadj Sanjogu mais nga mbool fajum cosaan waaw di wax ni euh, waa Rési yi mhm. ñu ngi leen di wax ñu fexe son bi kii balaa ñuy dem ci question yi parce que sànq retour son bi ñëwut mhm. ci ñun donc il faut que loolu ngeen réglé waale ko balaa ñuy dugg ci rubrique bi parce que dafa am ay question yu war mhm. donc ñu ngi leen koy wax Top yow moomu boo yeboo nga jóg ñëw taxaw ci lool mbokk euh, di wax ni pajum cosaan ñëw nañ ànd